ci unité 5 ànd ak seen média TV tey nag Bamba Faye moo woote le grand tambour major ñu nar kaa dugg ba mel suul ak bëjëk nee na sama caméraman bu ñaaw bi topp ma ñu daal di jël nii soosu nuy naa nuy naa ci loo ni naka maa xadi lu war a teewaay bi waaw taxawaay bi lu war a teewaay bi teewaay bi xanaa suñu waa ko ñëw tudd sama bi wax ma loo ñu mën a wax ci Bamba Faye tax nga jaay salal tey loo ñu mën a wax ci Bamba Faye waaw wax nga amul benn problème waaw nit ku baax la amul benn problème kon Sironé loo ñu mën a wax tey ci Bamba Faye lu waral nga jaay salal lu waral nga jaay salal tey Baba Faye moo ko waral Baba Faye ba xawle ñu koy jaay salal

maa ngi ci jàmm. nga woote siège la ñuy loué baas dañ koy loué mais ay nit kenn du leen loué. nga déplacé nit ñëpp ñëw ñu def déplacement dérangement jaay seeni lal tey lan nga yëg ba nga ñëwee gis tey damaa dugg sama yaram daw ma jooy barki Serigne Bamba pour na gis sama yaay ki nga xam ne mooy sama xarit moom laa ne ay jikkoom ku ci jël benn doom jikko bu màggee ñëpp seet si ko sama yaay bi nga xam ne du xas du jëw buy xuloo du wax ca kaw mais bu meree muñ la koy fajee. bu la yar dalay lay digal di ak kum digal bu toge ñam wa day bari bu tangé mu koy jëri diko tek tek ba day rafet ma gis sama yaay sama yaram daw mu tok assisté bam jeex ma gis sama nit nak ñëpp wuy si ma ku lim juum. Bamba lu waral jour bi nekku sa jour anniversaire nga prépé nga préféré def sabar lu waral lool parce que bam da dem ba tolloon fo xamni teggatul sabari ko gisé ci jakar loola mu ngi ci boîte yi di tëgg ci soirée yi gars yi na naan Bamba pourquoi mënoo bégal waa koñ bi def sabar def sabar ku nekk naan defal sabar defal sabar ma ne léegi kon ko dañoo sabar léegi nañu woote afro gala au lieu que ñuy sabar afro gala lañ woote nit ñi ñëw mu teel a commencé ñu def entrée 1000 francs moo ñu taxawoon 16 2000 VIP 5000 ña ko fecc ci géew taxul ta mujjee mhm. euh, yaa war a wax bu la taxee wax di nga wax loo xamul mais bu la réew mi nga xam ne man sama gox dañ maa bëgg bu la neexee woote seize dix mille boo ko wootee woon sa digg kër day fees dell fi ma dëkk nag dañ maa bëgg respecté ma xam maay kan valoriser ma artiste yi ku nekk ak fa nga mel ndax am na ñoo bu ñu woote woon seize téeméer sax duñ gis picc amaana nag li ma ne nag du ma ne maa fi mën nag ndax buñ la nee yaa fi mën ne li ma xew a tax mais nag ku ne xam nga kër la mën waaye da ko dul nangu lii laa wax. ñu ngi kontaan ci yow kontaan na Senemedia TV nee naa leen nag école boo gis du na directeur waaye télé yi ci réew mi yéenay seen directeur artistes yi nag di ngeen xam ne bari wax ak mën a wax di ngeen xam ne duñu benn wax ji duñ ko rax ku sax ci wax di dox ba dëgg laalo sa tànk ratax nga daana xurus ci bax lay wax nee naa leen nag xale ma dëkku de waaye maga may daan maga ma yar maga ma defar maa ngi ñëw seen kaw. wax tey lan nga yëg ba nga ñëwee gis nit ñi. tey neex na am na ambiance xale yi ñëw nañ foo nañ kaf nañ daal. léegi lan nga ñu mën a wax ci baam ba fay ban témoignage nga ñu mën a jox ci moom. waaw ah, moom xale bu baax la moom waaw ñun moom ñun ñëpp a ko mag waaw mais dañ ko jox rek defal lépp am moom moo nekk ci kër gi dañoo ñëw fekk ji ko mu yaatal ñu nag. waaw ñu ngi kontaan ci yow nan ngay tàggatoo waaw ah, maa ngi kontaan daal ci télé bi daal. ñu kontaan ci yow nee naa leen tey seen média TV ngeen àndaloon ci euh, sabar bi ala daw mi na neex na macha allah ñëpp kontaan nañ maa ngi lay fay maa fi. tey ñu gis la nga jaay sa la taxawaay bi rafet lool lan nga ñu mën a wax sa doom. waaw euh, maa fii maa ngi lay béggee lu bëree bari ah tey nag Bamba fay moo xewle di sama taaw bu góor macha allah mu nekk doom joo xam dafa bëgg yaay lool yëg ma faale ma xam maay kan su xewlee lépp loo xam ne jàppoon naa ko dama koy bàyyi damaa waroon a voyager mais bisam bii moom ma bàyyi ci dëkk bi tubaarkàlla tubaarkàlla nag moo am sama yërmande lool. bamba dina ma baleel dina ma raxasal dina ma foote xal doo doo nee mukk man góor laa lépp loo xam ne man bëgg naa ko rek moom mu ngi ciy dox tubaarkàlla lu mu am nag jox ma ko lu mu xam wax ma tey du def dara dara dara loo xam ne ump na ma lu ma ko tere mu bàyyi ma koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di ko ñaanal fépp fu ñuy dégg artiste Sénégal rek yàlla nañu ko fa dégg. léegi ñu gis yoonu aar euh, sori lool te bëri ay xaaxaam lan nga koy conseillé ci yoonu aar. waaw tubaarkàlla dama koy wax rek ni ko. mu mu mu dëbb dëbbinu baayam ndax baayam yàgg na ci aar tubaarkàlla defe naa ne 1972 ba tey papam mi ngi ci aar te kenn xamew ko lu ñaaw kenn xamew ko lu bon liggéeyam këram dama koy wax rek nag mu fi papaam tegoon fa tànkam rek mu teg fa tànkam du ko ci incha allah waaw. kon nag nee nañ li duuf si nag li xajul ci li mais nan ngay tàggatoo. waaw macha allah macha allah may kontaan ci yéen ñi ndax euh, c'est pas évident que ngeen toog ba heure bi

première fois Bamba Faye deuxième fois Mia surtout muy doomu jàmmagën bi xale bu baax xale bi yoo xam ne dañu àndee ba léegi dara ñaawul loolu moom ma yëkkati moo tax ma jaay samay nelaw jóge ba géejewaay daan si parce nga ñëw pass nga ñëw passé intestin ñu dëbb ko ba mu mel ni suul ak ba jag mbaa nga ne kontaan billaay maa ngi gën a kontaan ndax. waaye nga ne yow soxna si da ngaa vulgaire. eh yaa ma gën a vulgaire yow ma jaati laa lay toog. yow ah nee naa leen nag tey ñu ngi woon fii ci unité 5 Bamba Faye woote woon nee naa la grand tambour major xale bi nga xam ne nag nee naa leen bu tëggee mu neex bu waxee mu neex nee naa la gone super ngéwél gi. nee naa leen nag euh, ba beneen euh, ba beneen sabar rek beneen ambiance ak soir rek lu mën a doon ngay ànd ceen nag système yaa borom ten média wax amul dëgg du ba beneen